dëgg la te tarxiis hmm. bu demee baatu mbonaat hmm. borom gëléem bu fa jaaree ni ndànk la war a dox lu delluwaat ca dama ne tarxiis hmm. bu demee baatu mbonaat borom gëléem bu fa jaaree na def ndànk réew mu njëkkewu ci seeni loxo am na ci loxo yum nekkoon waaye nag da ngeen si bu bees boo xam ne ñoo ko yoroon defuñu ko woon moo tax ñu bëgg ne tekk di xool ba xam man damay toog doon xool ba xam fi ngeen jëme réew mi waaye na ngeen ci boole yar na ngeen ci boole teggin nit dangay xam yaay kan ndax bi nga commencé da ngaa indi baatab jom am na loo xam ne kenn waru leen caa fekk ndax fekkewu leen ñu mooñe noonu senegal dama laa waxoon ci léegi ci commencement bi ma wax la ne Sénégal ñi nga xam ne ñoom lañ fi yaakaar kenn ku ci nek la nga dul ba ko amee da nga jéggi da nga jigal ñi nga xamantene wala doon fakastal mhm. toppoo leen mhm. kon rek yéen it na ngeen soor ci lolu mhm. kenn ku nek doxinu waajuram moo war a wax li kenn ku doxinu wajuram bu rafet mo wara rak ndigam ni mu doxé rek ni rek la wara doxé ni mu doxé bu doxewu doon ni bal wara tak ci kom ndax lii waru koo dépassé ndax ndombol tànk dafa yàgg ci moom léegi hmm. ci histoire siin hmm. ndombol tànk dafa yàgg ci moom ndombo waru koo tax a dara wax lu ñaaw walla wax loo xam ne dañ naan cey li daf koo jombal li daf ko bet hmm. da ca deret de bu ñëwee ci moom yàlla mi ma tim xam ne lu mu wax nopp dina ko mën a dégg ci yar ci teggin ci sutura ci lu bëgg lu baax macha allah loolu rek la war a def. macha allah kon xale yéen fi ngeen xool. fi rek la yal na leen yàlla jàppale. amiin amiin jàppale réew mi nag. amiin amiin amiin ndax bu jàppalee xale yi rek jàppal réew mi. Mhm. ndax xale moom. waajur moom bu njabootam amee jàmm rek moom jàmm. Mhm. dëkk bi yal na fi jàmm nekk. allahumma amiin yàlla mën na ko te fi ngeen yaakaar te xooloo nit yi ñu koy xool. Mhm. yàlla na leen yàlla defal ak réussite. yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla defal ci màgg yàlla baax yoon. nuy xool te xam fi du jëm waaw di xool tey déglu mag ñi <coughs> tey gestu fi ñu weesu fu metti fi ngir fi ñu jëm fu rafet fi ñu bëgg a jëm ak fu baax fi ñu bëgg a jëm ñu jëmale fa réew mi ànd ko ak mag ñi ndax ni nan mag du mbokkum yàlla waaye yàgg la ak moom ndax euh, ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo lay wan fi ngay xool te alañ daan naan li da wax benn wax bu ma bu ma neex uh-huh. xool metti boo ci uh-huh. boolewul xef noonu ko ko waxe waaw xool metti boo ci boolewul xef mooy boo ci euh, kii wax lu ñaaw moom xippeel xool rek lu ñaaw li mooy mujj ëlbatiku ak buum laxas ko uh-huh. ndax bari na ko wax ba say wax laxas la bari na ko jëf ba say jëf laxasu ci yow ndax boo gisee am na ñu daan wax te booba ñu ko ci loo xamante ni bii euh, jekkut jaaduwut rafetul waaye liñ naan euh, euh, nit ku nekk sa deret bu daggee du weesu say cër uh-huh. boo daggoon tey bala ngay dem di taqal kenn sa bopp la njëkk a taq uh-huh. te wax ju ñaaw dëkkul fa mu jëm fa mu jugal la cosaanoo jataay bi bo gisee ñu def ko moy jataay bo xam dama ko bëgg ni épaiser waxtani mm-hmm. di féexal xol yi di giifal nopp yi ci wax bu ñaaw wax bu metti wax bo xam te ni dégg sa xol ñax-ñaxal nga tok ne wax dama dégg day ci télé ba wala wax ba dégg ci Pass TV euh, wax ba dégg ci émission joko ah doona wax bo xamanteni de internet yi ñom ñoy yaq réew mi te pourtant de euh, am na ñoo xam ñu ngi yëngal waye fi de bëgguma dara di fi yëngu di fi yaqoo ndax dañoo nekk ci bigg péncum ndakaaru nekk ak ñoo xamante ni bii suñuy nawle lañu ndax ñi nga xam ñoom ñoo jógee ci étranger ñëw ci suñu réew mii indi lii tey jii bëgguñu koo jox ñu ñu bëgg a jël li ñu am jox échange boobu bëgguñu ñuy daw ndax bokk na ci économie bi nga xamante ne bii day yokk réew mi ñun tamit suñu économie réew di yokk ngir di dem ci yeneen i réew ndax ki jóge ba Inde indi ay yëfam ñun ñu war a jël li am jox ko ñu ne Sénégal la jóge loolu suñu fierté la Uh-huh. te ñu ko teg pourtant suñu taabal bi di ko jaay te ñun li ñu am tamit ñoom bu ñu leen ko joxee dañuy dem jaay ko ci seen i dëkk kon dëkk bu am jàmm moo ko mën a def uh-huh. dëkk bu jeunesse bi déterminé wu xam fa nu jëm topp mag ñi ñu gunge leen ñoo ko mën a jëm soxna Kumba euh, Ababacar Saddi fay di ngeen di def ci projet xam ngeen dëkk bi projet dañ leen koo jaay waaye yéen tamit ci biir projet bi am ngeen projet boo xamante ne war ngeen koo jaay ci gox bi ngeen nekk ndax jeunes yaa nga fa ñenn ñi jàng nañ ba am licence amuñu liggéey ñenn ñu nga fa am seen i métier te amuñu fuñ ko fuñ fuñ fuñ ko defee ñenn ñi bëgg dem nañ ba jàng mi neexatul ñu bëgg am am métier soxla formation soxla aussi am ouverture pour jàppale seen yaay ak seen i ndax loolu yéen am ngeen ci yéen tamit projet bu ngeen jaay ci seen biir yi gox. waaw soxna Aïcha gis nga moom li may wax sànq soxna Kumba. Mm-hmm. ñun dañu war a waxtaan ci référentiel bi. parce que plan stratégique de développement la xam nga gars yi dañ doon yàkkamti rek. Mhm. ñun avant ñoo ñëw ci politique lañ bind livre solution président Ousmane Sonko. Mhm. wax ci lu bëree bëri wax ci hydrocarbure wax ci suñu taxawaay ñu ñuy def ba xam di Sénégal dina mën a rayonner. ni ngeen tojee seen bés léegi ñu ñëwaat di bind projet. Mhm. di ko projet boobu nag il fallait que ñu solal ko yëre état ci lañ nekkoon boo xoolee trois mois ba quatre mois li mu waxoon date bi ba mu jotee fexe na novembre bi projet ce génn maanaam di nga un Aïssa dafa am ben axe ci limi axe yi euh, projet parce que projet par at évaluer par dix ans 2029, mille vingt def évaluation ba ans encore 5 ans 10 ans canal ak ben décennal dafa am ben point buñ l'économie euh, économie compétitive Mm-hmm. économie compétitive boobu la président Ousmane Sonko di wax. mënuñu mm-hmm. ko def def créer créé ay filières de formation. Mm-hmm. d'abord. filière filières c'est l'approche li territoriale ñu devons koy def sax léegi boo le directeur 3FPT muy Babo, euh, nga xam mon ami maa euh, de passage dañu bëgg aller dem ci régions du Sénégal yëpp te mu commencé na faire sax. di dem ci région yëpp ci gouverneur, yi di leen gis pour xale yi bëgg des def euh, restauration. ñu bëgg a def informatique mm-hmm. ñu bëgg a def bureautique ñëpp ñu daal leen di bindu boo xoolee préfecture yi ibbi woon nañ ko temps yi les pôles avec les pôles mm-hmm. xale yi bindu pour moom financement boobu parce que 3PT dafa am fonds de financement loolu axe bi may wax nii da koy jëlaale en charge nga xam nañu former xale yi ci métier bu leen former on va créer ce qu'on appelle des chaînes de valeur chaîne de valeur mooy lan tey former naa benn tailleur Mhm. formé naa euh, ki nga xam ne mooy mooy cordonnier ñu xool nan lañ leen di boolee ci benn structure may leen doole jox ba nga xam ñoom danañ mën a liggéey ensemble di créer ay produits finis. mooy monap bi wala. Mhm. moom mooy boobu mooy 3FPT monap loolu ay mouvement la. di ñëw rejoindre sam papa sànq. boo xoolee biir Pastef am nañ magu Pastef. man fa ma nekk am na fa ñoo xam tey ñun bu ma amee problème ñun suñu biir ma ko passé ñooy sa suñu daal man dal na ma ak sama coordination waa lan Lansar di leen ziar mhm. xam bu ñu amee problème ma ko passé ñooy jël seen daal ne Sadikh nii waroo koo doxee nii ngeen war a doxee lii ngeen war a def mhm. mouvement boobu Sonko da koo teg te je pense que dégg ñoom sax am nañu assemblée euh, ay ay ay candidats yu ñu jël ku mel ni Mayaba Seck Mayaba Mbaye mhm. jël nañ ko ah, kooku ci magu passé noonu lañ jëlee ku mel ni comme kii nga xam mooy Matar Sylla xam ne moo nekk sama Euh, sama gox nga xamni man maay euh, coordinateur comité électoral bi fofu donc pour mu téwal ndaw ñi c'est-à-dire filière yoy ma ñëwaat ci rek mo lay son ay sa ñun amna luñu préparer pour nga xam tane tay axe bobu di économie compétitive dinañ am luñ fa liggéey Non lañ ko préparer ci li wax naa ko sànq ci équité sociale ak capital humain parce que deuk bop mo koy défar té lool day dugg foofu bo amul capital humain bu paré pour mëna li ngay teg muy industrialisation ñu mën a dugg ci entreprise liggéey boo leen préparé wu ci formation yow mënoo cee génn donc loolu bokk na suñu axe mu ba ci bonne gouvernance ak yooyu ñun préparé wu na moo tax projet bii damay ñaan yàlla suñu borom mu teg ci loxo. incha allah mais jàpp naa ne ñu ngi ci yoon bi. Mm-hmm. te dinañ liggéey Sénégal affaire bi nag xam nga lañ moo fi am dañuy ñenn ñëw àndandoo liggéey parce que Sénégal dafa bëgg a dem. Mm-hmm. te àndandoo liggéey bi man woo naa ñëpp gis nga fii Sénégal warutul fi ñu toll nii. boy booy opposé del contribuer fiñ mu ci ay xeex ñun kumay wax na ma wax yi ngay wax ni té di filière de formation yooyu noonu jeunesse yépp bi dinañ ci gis sen sen sen bopp parce que ressources yi naturelles paré wuñu pour légui diko transformer diko transporter brut diko jaay noonu hmm. dañu bëgg légui créer ay entreprise yo xam xalé yi dinañ dem liggéey ci pétrole pétrole mun nga ci am plus de 100 métiers lu bokkut ak essence ak gasoil ak ak ti ngay gis ni courant bi nak doguma la moom woyofal mom <coughs> moom mu ngi rey su fekkee ministre bi mën nañoo dimbali ci woyefal xuyu kama ji commencé na te woyefal métti na métti métti goo xamante ni gii moom woyefal billaahi bu fekkee mën nañ cee dimbali ñu jël parce que woyefal métti na da ngay dugal dix jours euh, euh, euh, dix mille mu defal la cinq jour te loolu métti na ci jaboot nga war a taal sa frigo wala la taal sa ventilo ventilo wala def sa clim wala nga def sax sa télévision war a toog seetaan mu def cinq te balaa mën a fay minuit jot soo amul loolu lijjantee amoo wéef amoo dara ak jamono bi fi mu toll ak dëkk bi ñu commencé di di di di réformer waat bagage yi metti na bu fekkee loolu ministre bi nag mën ngeen koo jottali mu dimbali ñu ci courant bi ni mu chéré ak woyfal gi ni mu méttee xattakat dañu jox ay chiffres fan yi passé ay chiffres lañ ñu jox nga xam te da dugal chiffres yi mu daal di renouveler waat conteur bi léegi boo mbar naan dugal léegi cinq mille mu def ñaari verte rouge lay def ak verte trois jours nga courant ba mais bu fekkee <laughs> euh, actif ak benn avertissement actif ak avertissement def. bu ko mu lu metti ministre bi soxna Aïssa man man ministre bi nu mu tudd na tudd turam man man du ma ñu. balaa ma nu ma tudd sax ministre de l' énergie. non man. li a wax man du ma dugg xam nga man dugg ci ndax ñun mu ngi dee nag. non léegi pétrole dafa am lu ma la ci bëgg a leeral. yéen sénégalais yi laay waxal. parce que lii faamu leen nga président dama bëgg président sortant. bi muy génn Birame Souleye Diop. non du kees non waxuma non. pétrole bi mu ngi ñu ngi. Birame mu ngi liggéey ah. ah courant bi kon de liggéey na lu métti non courant bi dafa am lu ma leen bëgg dalal hmm. nee nañ leen d'ici deux mille cinquante ci suñu plan stratégique bi deux mille cinquante non dama ne balaa ñu faa yéeg dafa am loo xam état hmm. duñ la wax neex neexu dëkk population loo koy wax na doon dëkk ah. gis nga ñun dañ ci projection la nee leen dina dem pet gi électricité bi man maa ko wax hmm. te moom lañ moom lañ bind suñu plan stratégique d'ici deux mille cinquante kilowatt dina dem ba jar soixante francs hmm. avec le directeur Petrosen avec le ministre de ah, l'énergie ah, Aline Gueye Aline moom it ci la bokk non damay wax dama am lu ma ci bëgg a expliquer nga pet gi nga courant man jàpp naa ne bu ñu leen taxawoo liggéey li ñu war a bañ liggéey li ñu war a liggéey hmm. ci projet bi hmm. Sénégal dinañ dem ba ñun ay clim dootuñu am problème xam fan lañ jëm Sénégal nan lay fexee bay def transfert d'énergie gazam parce que gaz tay bo mën nga ko utiliser ci bëri bo demee Europe gis nga gaz ni ko utiliser ñu lañ am ci gaz ñun da daf ñoo doy ba war ñu mën ci jaay sax à l'étranger kon problème courant dama naan leen problème de temps liñ fi amone nak stock bu leen faté ni li waron génn ci hydrocarbure ñun ci ni baril Bassirou Diomaye le président Bassirou Diomaye bimu ñëwé yagul lañ ko njëkk jox pétrole bi njëkk a kon donc président bi fi nekkoon bi dem ci ni stock liñ amone sax ci hydrocarbure nga xam moy alimenter énergie presque jeexoon na fu mu dem. ah loolu ñoom lañ ko laaj on a fait parce que fi ñu toll si ni phase mooy phase de redressement kuy redressé nag faa mu am tuuti métit mais jàpp naa ni jàpp naa ni du yàgg loolu sénégalais yi bu verrez les résultat de ce régime. courant mais li ma leen ñaan maa ngi leen di ñaan ngeen mun rek taxaar ah. xam nga nit boo fekk mu. mu mara mara mar ba làmmiñam di tàllal waaw. nga koy wax ni ko nga yow taal ëpp sa taal daal di koy bàyyi am na teen buñ leen di gasal waaw boo ngeen muñee fii ak ay diir waaw teen boobu bis bu ñëwee di ngeen a naan a naan ba gal waaw waaw mu noon koo jox kopp ndox boo xamante ni dëgg yàlla dëgg dina ci mën a étendre dafa dem jotoon am sax nga ne ko indi le temps que teen boobu sax mu mën laa kii parce que tamit de plus en plus mhm. euh, nit ñi ñi ngi jànkoonteel ak ay jafe-jafe hmm. ci wàllum dund bi mhm. Mhm. ci courant bi moom wax dëgg yàlla unanimement ñëpp ko wax. Ah, courant bi dafa jékki-jékki cher cher boo xamante ni kenn comprendre ko. ah kenn comprendre soit il y a une mauvaise communication autour. Mm-hmm. boo xamante ni dañu bàyyi nit ñi xamuñu mm-hmm. fu ñu jëm. waxuñu ñu li nga xamante ni moom moo xew. moo xew soit il y a une mauvaise politique derrière. wala que nit parce que tamit. il un sabotage voilà parce que nit ñi ci li ñu jàpp ni. mooy li nga xamante ni bi moom lañ leen doon wax ñu amoon ci yaakaar jàpp ci. waaw donc ñi ngi ci 7 8 mois. Ah. affaire yi di gën a tar est-ce que loolu tam ça ne pose pas de problème du wax nit ni fi ni fi jóge won dig yi ñu doon dig mom mm. kessé lañ parce que dig dig rek la mm-hmm. té ni président Ablaye waxone mm-hmm. euh que ni dig mom mm-hmm. kiko kiko gëm rek kooku la engagé la promesse n'engage qu'à celui qui y croit loolu la le président Ablaye Wade loolu la fi waxone donc est-ce que tamit nit ñi duñu yaakaar ni que ni ca la woon. Mhm. ca la ñu nekk ba léegi ay digaate rek. ah dëgg yàlla ndax tegaguñu dara suñu ah. loxo loo xamante ni. ñu fekk la nga sa ñaar téeméer mën na dalal di ko sakkanal. non kumba soxna di poqet téeméer ba bàyyi la ak téeméer kon kay dooleetuñ la dara dañ laa wàññi. non dafa am ku mhm. dossier bu ñu hérité. président Ousmane Sonko le le premier ministre. def mhm. na ci benn sorte ak ay def na ci sorte ak ak les membres du gouvernement yenn ministres yi. wax na leen tey si nous taux d'endettement, nous sommes à 80 Nous avons aussi, au Sénégal, nous avons fait un tirage extérieur avant nous. Les gens ont fait une banque banques, parce que 500, les banques SNS, 518 milliards par année tirage mm-hmm. extérieur. Mm-hmm. L'EPTI mm-hmm. a un budget de 1800 milliards. Si nous avons un stock d'hydrocarbures, nous avons dit que nous avons zéro courant alimentaire, parce que nous avons fait des points qui nous ont ravitaillés en électricité. Vous comprenez hydrocarbure boobu dañoo demoon ba stock bi dara amatu fa. Mhm. bi ñuy ñëw ñun jàppoon nañ sax problème mu fay salaire dañu doon am problème bu leen fàtte ba le président Bassirou Diomaye Diakhar bi muy ñëw dafa leb nit ñee ko doon wax daa ñëw rek leb donc c'est-à-dire y a yoo xam te ni. Mhm. rebond boobu mu def su ko deful woon. Mhm. dina gën a metti tey dañu nekk ci phase de redressement mooy phase boobu mën a ci explanation. ñu ci phase boobu mais aussi sa dëkk buy dox la ñuy waaw non xamul tax dëkk bu kale kenn du ko lebal. non non xamul tax ñu leb. Sénégal. signature dafa bax mais tamit li ngay lepp na la jàpp ni day doon dette bu am doole te nañ nañ ben benn sénégalais bu nek am nga dettu 900 millions wara fay te hmm. ak donc te bo ñëw dekk fekk ko ñu jox la ko te mu am ay fonctionnaire am ñu liggéey fa yow nga gérer ko mais nak gérer bob day doon gérer avec intelligence excusez-moi hmm. le président Bassirou Diomaye Diakhar xam na li fi fekk ñu ngi ci phase de redressement hmm. mais pour redressement boobu mën jaar yoon dama leen koy wax jox leen assemblée bi bañ ko jëlee ngeen di gis lu bëri. contrat yu bëri na changé. Mhm. man jàpp naa ni courant bi li may wax nii. damay mhm. parce que nit looy wax na doon lu dëgg. courant bi sénégalais dinañ dina Sénégal day gën a neex. ah yal nañ ci yàlla yóbbu incha allah te dama koo gëm. billahi yal na yàlla baax kenn